أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala ba tey ñuy toll ci suura ala imran ñuy jël tey ñaari aaya aaya 116 117 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala dinu ci jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy lan yugniya anil mar'i maalun wala walad doomu aadama na yëg ne alal ak doom du ko jëriñ mata zalama saa yu nekkee ci tooñ rawatina nag di tooñ borom bi subhanahu wa taala na yëg ne moom doomu aadama boobu amul mucc ëllëg yowmal qiyaama wa taarrada li nicmatillahi taala na ko yëg ne moom alkande bu bàyyee ko ci yàlla menacé na ko kon ñaari aay yi nekk sunu kanam liñ ciy njëkk a jàng mooy ku gëmul yàlla alal mënu laa jëriñ doom mënu laa jëriñ ndax alal ak doom fii lay yem ci àdduna musu leen gis ku faatu ñu boole kook alalam mu ànd ak moom dem àllaaxira yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax dafa wax ne yatba u mayit salaasa wa yarjo isnaani wa yabqa waahid ku dee ñett lay gunge mu ne ñaar ñi dañuy dellu nga continuer ànd ak kenn ki ku dee ku ne sa alal dina la gunge waaye fan lay yem ci buntu kër gi lay yem après nga ànd ak say mbokk say am di jàmm say xarit ñu yóbbu la ba bàmmeel ñoom tamit ñu ne la ñun kat fii leen mën a yem kan nga yàndal sa jëf moom ngay dugal biir bàmmeel bu dee jëf ji jëf ju baax la yowmal qiyaam boo dekkee yàlla indi ko mu nekk melokaanu rab bu rafet ne la xam nga ma nga ni ko déedéet mu ne la ana amaluka saalih maay sa jëf ju baax xaar ma sëgg nga war ma moom jëf ji mu sëgg nga war ko mu jéege yow siraat yéen ñaar ngeen dugg aljanna su fekkee jëf ji baaxul woon yeneen ci yàlla musal boo dekkee jëf ji day ñëw nekk rab bu soxor bu ñaaw bu ragallu bu tiitlu ne la xam nga ma nga ni déedéet mu ne la man la sa jëf ju bon sa gël ma war la waaw moom moo lay war kële dafa waroon kii nag ah ndeysaan moom moo lay war mu war mu war la doo ko àttan ngeen di jéggi siraat yéen ñaar ngeen daanu ci biir wala yaasu billah kon doomu aadama na yëg ne alal du ko jëriñ doom du ko jëriñ feeg mu ngi tooñ yàlla alal mënulu ko dara jàngeen keroog bi yàlla di tëkku walid ibnul mughira ci suuratul mudassir yàlla dane zarni wa man xalaqtu lu ci déggu wa man xalaqtu wahida wa jaaltu lahu maalam mamduuda wa banina wa mahattu lahu tamhida summa yadman an azim bàyyi ma rek bàyyi ma ak gaay waa ji nga xam ne man yàlla maa wéet bind ko zarni dafa mel ne yàlla dafa mer Muhammad di ko jàpp yàlla ne ko bàyyi ma rek bàyyi ma zarni bàyyi ma rek wa man xalaqtu wahida ki nga xam ne man maa wéet bind ko moo koy bind kenn fekkewu ko amul kenn ku ci jàpp yow ma ci loolu bi ma ko bindee pare waaye wa jaaltu lahu maalan mamduud ma may ko alal ju ne gaañ wa banina shuhud ay doom yoo xam ne ay ponkal lañ fu mu toog ñu teew ñu ne xool leen doom yi diw yi waaye bi mu jaamulee yàlla lan moo ko jëriñ dara jëriñu ko loolu da koy perte kon sunu aaye premier tey bu njëkk mooy nanu yëg ne doomu aadama kat alalam mënu koo jëriñ ay doomam mënuñu koo jëriñ bu fekkee ci tooñ yàlla la nekk te ba pare na yëg ne mu ngi ci danger ñaareel mooy ahlul kufri hum ahlun naar mbokk yi sunu bëggee xam ñan ñooy waa safara sunu borom nee na ñi weddi yàlla ñooy waa safara ku weddi yàlla rek safara nga jëm loolu moom munuñu koo muusee munuñu koo waanee bu yeboo ñu neexalaate bu yeboo ma ni ku weddi yàlla safara nga jëm léeg-léeg doomu aadama dañ naan non bul di baa gaaw a wax safara yàlla moo ne ku ko weddi safara la jëm amul négocier amul lu nu lu nuy jéem a baap waa ji nan ko wax dëgg gi soo weddee yàlla safara nga jëm ku weddi yàlla safara nga jëm amul kenn yàlla amul mbokk amul xarit amul am di jàmm yàlla ay jaam la am jaam bu ko nangoo jaam mu ne ma dugal la aljanna ku nangu boo weddee wallahi kenn mënu laa tere lakk xool leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi taxam bi ko gënoon a bëgg nga xam ne danaan toog yonent bi di lekk ci kawam suy tukki di ko yóbbaale fat ko ci këram defal ko lépp buy commerce yóbbaale ko bàyyi jooju mu ngi safara ibrahim xaritu yàlla la yàlla moo ne wattaxaza allahu ibrahima bàyyam a ngi safara wala nuux doomam ak jabaram ñi ngi safara luut jabaram mi ngi safara ibrahim doomu baayam maanaam mbokkam bu tudd qaaruna mu ngi safara kon nag ku jaamul yàlla ku fexewul ba nekk ci groupe yàlla bu yeboo nga xam ne fii yàlla mujjee ak noonu bi foofu ngay mujjee ahlul kufri hum ahlun naar wa xuluduhum fiha mahkumun waa safara mooy ñi weddi yàlla mooy yéeféer yi ñoom ñooy waa safara te buñ duggee safara li yàlla àtte ci ñoom mooy dañ fay sax loolu si ki sàkk amu ci ku yebo rek ci ñun mu jéem a bokk ci ñi gëm yàlla ndax ba pare bu fekkoon sax buñ duggee safara ñu def fa ay fan ñu génne leen waaye dañ fay sax éternellement allahu akbar xam nga nit ñi lu tax duñ jaamu yàlla mooy ci ñun fii kan moo ñeme rek ñu ne la nañ jël brin almet ku xam fi almet ku xam fi almet xam ngeen almet ah ñu ne la nañu taal brin almet bi rek ñu tiimale ko ci sa nopp ba brin bi jeex après ñu jox la un milliard ku koy nangu fi beneen almet ni mu tuutee xam nga sénégalais dafa mën a jéngu dafa mën man dama koy jéngu après ñu jox la milliard bi xoolool kenn du ko nangu léegi bu doon sondel nag ñu ne nañ ko taal ñu tiimal ko sa nopp bi ba sondel bi jeex ñu jox la loo bëgg lan ngay wax lan ngay tontu ki la ko wax ki la wax loolu dafa la proposition boobu lan nga koy tontu léegi nag ki la ne kaay toog ci gaz nag kaay toog ci gaz ku la ko wax kaay toog ci après bu paree bu gaz bi jeexee rek loo wax rek nga wax rek loo wax rek dañ lay jox benn sec loo ci bind ñu jox la looy tontu ki la ko wax léegi ñun ñett yi yëpp yu ndaw la mënuñu ko dékku ñu bëgg a dékku jahannama la ilaha illallah est-ce que kon xam na ñun ci lu nekk xam ngeen safara bi mu boyee étincelle yan la doon sànni innaha tarmi bi sararin kal qasr ka annahu jimalatun yàlla nee na étincelle yu toll ne château est-ce que château am na Sénégal yéen ñi jàng château am na Sénégal ah château laa wax de am na fi château amu fi Sénégal li muy toll toll amu fi ko am château comme building ah moo xaw a tane quoi allahu akbar mais du moom sax ba tey de ndax espace bi matu ko yàlla nee na safara bi mu booyee étincelle yu toll noonu la doon sànni ka annahu jimaalaatun sufr mi ngi mel ne ay gëléem yu zone boroom xam-xam yi nee na yàlla bi mu bindee safara aadama xam ngeen aljana la nekkoon lu ñor xomm la doon lekk aadama bi ko yàlla wàccee ci suuf ah mënatul lekk lu ñor picc bu mu jàpp wala yàpp bu mu am bu reyee dara kéwél yu demee noonu bu koy lekk du xam nu du ñor mu ne yàlla doo may ci sa safara boobu jahannama ma ma ci toog yàlla mu ne ko safara jahannama xejul àdduna aadama mu ne yàlla dimbali ma rek bi ma wàccee ba léegi lekkatuma lu ñor boroom xam-xam yi nee na yàlla dafa dem jahannama daal di fay dagg lu toll ne bekk sukkar sànni ko ci géej gi géej gi di bëbb nii comme nii di def nii muy def looloo ko indi mu sànni ko ci montagne yi ñu explosé mu dugal ko ci suuf si suuf si di xar ba mu xaw a sedd mu génne ko mu ne ko Adama genn wàll gi nag naa la ko jox nga toggee ko li ci des yëpp mu ngi fi ma dencal leen ëllëg bu ngeen jaamul yàlla bu ngeen ñëw fi laa leen dugal yonent bi alayhi salaam moo nettali nee na bu tàngaay ñëwee bu tàngaay bi ñëwee ba nit ñi sonn mënatuñu nekk seen biir kër yi nga gis ñëpp génn ñii sol ay kilot ñii di upp ñii jël ventilateur ñii jël climatiseur ñii jëm géej yonent bi nee na jahannama mooy noyyi bu fekkee jahannama mooy noyyi kon ba mënuñoo toog suñuy biir kër mënuñoo tëdd suñuy lal mënuñu fanaan ci ay mat la ventilateur doyatu la jahannama mooy noyyi ci loolu kon buñ la ci dugalee la ilaha illallah yal na yàlla yërëm moo tax xamuñu ci luñ nekk yonente bi sa salaa salaam moo tax mu ne gars yi law taalamuna ma alimtu ay bu ngeen xamoon li ma xam tey su ngeen xamoon li ma xam yonente lu tax mu xam dafa dem laylatul isra wal mi'raj dem aljana dem safara gis lépp teg ci bët moo tax mu ne cey su ngeen xamoon li ma xam di ngeen jaamu yàlla di ngeen jooy lu bari reetaan tuuti kon wallahi dootu leen jege jigéen ñi ci kaw lal yi kon di ngeen génn jaar ci mbedd yi koj nit ñi di waxtaan ak ñoom kon yàlla subhanahu wa taala bu ne yéeféer yëpp safara lañ jëm ba pare sax dañ fay sax xaalidina fiha ba pare mu ne muqaddarun alayhim dañ koo dogal ci ñoom laa na najaata minhum kenn ci ñoom du rëcc amul kuy nekk yéeféer kuy muus ak waane dangaa ñuul dangaa xees dangaa njool dangaa gàtt dangaa jege dangaa sori loolu ne safara nga jëm yowmal qiyaamati bu war a ñu jaamu yàlla dara mënu ñoo rëcc loo ëllëg lu dul rek benn combine booy bëree ku la mën nga xam leer na le xam nga ne kii moo la mën nooy def da ngay combine bëre bi da ngay daw song ko rek jéem a galgal bu la sànnee nga toog bu ñu waxee nga ni dama dama affaire dama dama kii waaye xam nga yow xam nga sa bopp ñun dañuy bëreeg yàlla ku mën ah ku mën nan dem ci armée li ñu xool ñi fa tëdd ñi fa tëdd yëpp moo leen tëral ñaata armée ngeen xam ñi songoo nag moom ñëpp dañoo tëdd kon nag nanu xam ne foofu la nuy mujj kon ñu nekk ci lu mu santaane ñetteel mooy butlaanul amalu saalih bi shirki wal mawt alal kufr ñetteel bi ñuy jëlee ci ñaari aaya yi nekk suñu kanam mooy jëf bokkaale daf koy yàq butlaanul amal bi shirk doomu aadama boo jëfee lu mu baax baax baax baax baax baax boo bokkaalee yàqu na walaw ashraku la habita anhum ma kaanu yaamaluun yàlla nee na bu ñu bokkaalee xoola yonent la yàlla jugal ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna wallahi soo ma bokkaalee yow muhammad saa duna yàqu nga perte nga loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko yàlla tabaraka wa taala wax kon nag jullit ñi nañu sori bokkaale tey ci Sénégal néew na ku dul bokkaale ñii dañuy waate sëriñ ñi naan yàlla ak bu neexee yàlla ak diw bu neexee yàlla ak sàmba bu neexee yàlla waaye barke diw waaye daanaka léegi yàlla kenn du ko tudd ñii di takki gàllaaj ñii di takki weñ ñii di sujjóot ci ay xërëm ñii di sujjóot ci ay bàmmeel ñii di ziyaare raay bàmmeel di ko def ci seen jë loolu yépp bokkaale la jullit day bàyyi bokkaale soo ba soo bokkaale rek sa jëf yàqu na boo yendoo woon woor di jàngal Qur'an di julli ba tëdd jot nga ni maa ngi tëdd ci diw li nga yendoo woon def yépp ma màbb na boroom xam-xam yi dañuy misaal bokkaale ni muy yàq jëf ñu ne xam ngeen gerte ku xam fii gerte xam ngeen gerte caaf ma jël boobu xam ngeen gerte caaf kan ci fii ci ñun moo ko mus a lekk nga lekk di sex di sex di sex ba sa gémmiñ fees nga dugal ci bu nëb nan nga def da ngaa wan gerte gi da nga ko wan noo ko def lépp ngay yàbbi gaa allahu akbar li nga dugaloon ci biir avant ngay dugal benn bu nëb bi ñaata la bëri na da nga doon tànk rek di sex di wal mu mu neex trop ngay espérer waaye nga jékki-jékki rek nga dugal ci benn bu nëb benn xoolal benn nga dugal bu nëb bi nga dugalee benn bu nëb bi lu xew dangaa yàbbi la noonu la bokkaale mel bokkaale baaxul te xoolal réew mi nit ñi ni ñuy bokkaale daanaka ba pare te bàyyiwuñu xel ne dañuy bokkaale te yàlla nee na bokkaale du ma ko baale bokkaale day yàq jëf te ku ko deewaale safara nga jëf innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma li zalimina min ansar yàlla nee na képp ku ma bokkaale ba dee safara nga jëm moo tax kenn du waate nit man xalafa bi gayri llahi faqad ashraka wa kafara képp ku waate nit yonent bi nee na bokkaale nga waaye yonent bi nee na yow yëféer nga yonent bi mos leen ko dégg mu waat nit bu fekkoon ne daga na yonent bi waat ci ibrahim wala waat mu waat ci Moussa wala mu waat ci Isa wala mu waat ci Nuux waaye lan la doon wax wa rabbu ibrahim giñ naa ci borom ibrahima wala mu ne wa rabbil kaaba giñ naa ci borom kaaba gi wala mu ne wallazi nafsu muhammadin bi yadi giñ naa ci ki nga xam ne bakkanu muhammad ci loxoom la nekk sahaaba yi ndax mas ngeen dégg benn sahaaba bu ne barke rasulillahi di ngay gis bi benn saay saay yaafuus yambar bu alko barke rasulillahi laa la wax te dara du ci barke rasulillahi kenn du ko waate suñ waxee rasulullaay nag ku nekk ci ginnaaw rasulullaay jëlal kenn du waate nit yàlla dong moo am droit waat ci nit amma nit amul droit waat ci kudul yàlla tabaraka wa taala omar ñëwoon na ci yonente bi ne giñ naa yonente bi ne ko omar atajaaluni lillahi niddan da nga maa bëgg a bokkaale ak yàlla omar ne ko macha allahu wahda jullit yàlla rek lay waatee yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne jullit ñi war nañ kaa moytu takk ay galañ fii takk ay petaaw takk ay xaaw takk ay laar ah di toj ay nen fii jullit na moytandiku loolu ndax yow dafa am loo xam ne soo ko defee rek sa diine day yàqu kon war ngaa xam lu yàq sa diine yéen ñëpp ànd leen ak man am na lu yàq njàpp nangu ngeen ko am na lu yàq koor am na lu yàq julli ah am na lu yàq aj noonu la amee lu yàq islam islam bi day yàqu fi mu nekk nii ñu bëri dañ leen war a tuubloo jullit yu bëri ci Sénégal dañ leen war a wax dañ leen war a indiwaat sang leen ñu tuddaat baatu seede yi parce que dañoo génn ci l'islam li yonent bi wax ne ku ko def sa l'islam yàqu na kon loolu na ko jullit mooy tandiku mbokk yi ñeenteel bi mooy istihsaan darbul amsal léeg-léeg day baax sooy waxtaan ak ay nit nga leen di jox ay misaal pour maanaa yi jege li taqribil maani ila al azhaani ngir maanaa yi jege ci seen xel ak seen nopp ak seen bët ñu mën a dégg léegi léegi mbir mi leer misaal bi may joxe mooy léegi léegi bi ma leen joxee misaal ci gerte yéen ñëpp nangu ngeen ne loolu dëgg la kuy lekk gerte ba sa gémmiñ fees boo ci dugalee benn bu nëb dootoo wan na gerte ga de noo koy def gerte gi nga doon lekk lan moo ko yàq ñaata gerte ñoo ko yàq benn kon gis ngeen benn bu bon nu mu nu mu grave lu bon naka noonu sàngara vinaigre sàngara noonu lay yàqee naka noonu bokkaale noonu lay yàqee loo ko dugal yàqu na fi mu nekk nii nag kenn jëloon pondaal def ci soow def ci suukar vanille def ci muscade def ci meew def ci def ci indi leen lépp def ci suukar yëngal def ci dojju glace daa ci def toq saw nee na gis nga bëriwul de toq saw rek laa la ko ci defal tuuti mu ngi nii bëriwul dama ko cee toqal rek loo koy def nooy def pot boobu bu doon toq deret nag di nga ko naan fii ci ñun kenn du ko naan te ki la ko indil boo ko ëppee doole boo moytul pes nga koy def voilà lu bon a ngi noonu lu bon baaxul kon nanu moytu lu bon day yàq saag bi naka noonu pombiteer bi jërëjëf kon misaal léeg-léeg boroom xam-xam yi léeg-léeg yàlla tabaraka wa taala ci alquran sax yàlla daf ñuy jékki-jékki rek daal ñuy indil benn misaal pour lan pour li muy wax ak ñun mu jege ñu gaaw mën a dégg kon ñaari aaya yi la ñuy jël tey bi idnillahi tabaraka wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون sunu borom nee na inna alladina gaa yi nga xam ne ismu mawsul la kafaru ay yéeféer lañ weddi yàlla kiñ doon jàngal dana wax inna allasina joo gis kafaroo topp ci seeni borom xalku nanu doon na dëgg de kon ñii ñii jàng tey ñii dañoo alku yàlla nee na inna lazina gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla nekk ay yéefér lan tuxni anhum wallahi du leen jëriñ amwaaluhum seen alal wala awlaaduhum seen doom ku wax wax ji min allahi ci yàlla say an tus yàlla nee na ku ma weddi sa alal ak say doom du la jëriñ dara ci man ëllëg yowmal qiyaama inna lazina gaa ñi nga xam ne kafaru dañoo tànn nekk ay yéefir kenn forsewu leen ñoo toog analyse def seeni xel jàpp ne ñoom waruñu nekk ay jullit waruñu nekk ay ñu gëm yàlla yàlla nee na lan tughniya lan xarfu nasbin la loolu ngeen jàng lan tughniya anhum du leen jëriñ mukk mukk mukk mukk amwaalahum amwaaluhum seen alal wala awlaadum ak seen doom min allahi ci yàlla shay an dara seen alal ak seen doom du leen jëriñ ndeke kon alal léeg-léeg ci àddina mu jëriñ nit de waaye àllaaxira moom alal mënu faa jëriñ doom léeg-léeg ci àdduna mu jëriñ nit amma àllaaxira du fa jëriñ kon sa alal ak say doom fexeel nga tàggat leen ci yoonu yàlla tabaraka wa taala boo amee alal def ko ci fi sabilillah boo amee ay doom jàngal leen diine waaye nga nekk ci àdduna rek dara nekk sa soxla lu dul dajale alal waaye alal jooju encore doo ko du def fu neex yàlla boroom alal yi ñeent lañ ci seen alal ku jële fu xaraam def ko fu xaraam safara la jëm ku jële fu dagan def ko ci lu xaraam safara la jëm ku jële fu xaraam def ko ci lu dagan safara la jëm ku jële ci lu dagan def ko ci lu xaraam safara la jëm ñaata ngoog ah ñetta ngoog ñetta ngoog ñeenteel mooy ku jële ci lu dagan def ko ci lu dagan rëccut de dañ koy enquête fistine par fistine dërëm par dërëm fan nga ko jële fan nga ko dugal ba mu ñaqatooy xeb lan tazula qadama abdin yowma alqiyama hatta tusal an arba xisaal li mujj ci xadis bi mooy an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfa alal ji foo ko jële ak foo ko dugal te ñeent ñett ñee ñoom kenn waxtul seen mbir ndax ñu ngi safara fu araam nga jële fu araam nga ko dugal lakk nga fu dagan nga ko jële dugal ko fu araam lakk nga fu dagan nga ko jële dugal ko fu araam da ngay lakk fu araam nga ko jële dugal ko fu dagan da ngay lakk kenn ci des te kooku nga cudde ci kanamu yàlla lay taxaw fistine dërëm fu mu ko jële fu mu ko dugal kon loolu jullit war na ko bàyyi xel alal ji fexeel ba bul ci def lu bon say doom fexeel ba nang leen yar yaru diine lii rek mooy tax nga mucc jëlee sa alal ci lu baax def ko ci lu baax ne Omar ibnul Xataab doon def Ousmane ibnu Affan Abubakrin Saddiq radiallahu anhu wa arda Ousmane joxe na alalam ci diine ba yonent bi ne ko Ousmane defal lu la neex yàlla xoolatu ko ak Abdurahman ibnu Awf joxe na alalam ci diine ak aboubacarin saddiq yonente bi ne aboubacar lu fa des mu ne ko yàlla ak yonente bi laa fa bàyyi lépp indi naa ko ab jullit noonu lay def bu amee day dimbali ay jullit dimbali ay mbokkam ay doomam aussi mu jéem leen jaaral ci yoon bu baax yoonu lislaam yoonu diine marru awlaadakum ala salaasati xisaal yar leen seen doom ci ñett hubbu nabiyakum wa ala baytihi wa tilaawatil qur'an su ngeen amee doom yar leen ko mu bëgg yonent bi ak waa kër yonent bi ak jàng alxuraan waaye tey gis ngeen suñuy borom alalu réew lu ñuy def financé làmb làmb ji lu tax mu yegg si fii borom alal yi ñoo ko financé te xam ngeen ne làmb daganu dafa xaram musique bi xool leen fu mu yegg si borom alal yi ñoo ko financé bépp caaxaan bu ngeen gis ci Sénégal mu continuer di am mu réussir. ay borom xaalis ñoo nekk ci ginnaaw di financer lu bon loolu lu baax kenn du ko financer salle de jeu dañ koy tabax kenn du ko yelwaanal d'accord ngeen foyer de jeune dañ koy tabax kenn du ko yelwaanal d'accord ngeen stade dañ koy tabax kenn du ko yelwaanal d'accord ngeen jàkka nag lu waay man ci jàkka ji fii sabilillah juróomi at fukki at ñaar fukki at ñu yelwaanal jàkk ji du pare beneen yeneen kii dañuy yëkkati rek mu taxaw soo rombee ni lii lan la rek ñu ne la lii foyer de jeune la kii benn bar la kii benn discothèque la kii benn dancing la kii benn rak tak mu pare ñu woo gars yi ñëw inaugurer suba gars yi commencé siire seen dàll jëngal sol ay jëngal kiris karas tube yi dem fecc yow mal xiyaama ngi ñëw de borom xam-xam yi ne kullu ma huwa aatin fa huwa qarib lépp luy ñëw daa jege wallaahi luy ñëw ak a jege xam nga nit ñi dañuy toog naan suba la nangam fekk moom fii lañ toogoon naan koor bi kañ la toog naan tabaski kañ la toog naan gàmmu kañ la kii kañ la lii lan la lépp luy ñëw dafa jege gis ngeen dee dee dafa jege soriwul dara te buy ñëw ci yow dalay bett kon fexeel bu la dee di ñëw ci yow na fekk rek nga nekk jullit kan ci ñun moo bëgg a dee stade nekk ci loxoom ku bëgg a dee stade kan ci ñun moo bëgg a dee ci làmb ji kan ci ñun moo bëgg a dee dem soirée dee fa tey boo nee woon benn boo nee woon benn waay bu waay boo demee jàkk ji boo sujjóotee yàlla nga dee foofu amin waay waay ñaanal ma loolu waay lu tax nga bëgg a dee fee te bëggoo dee fee te fi nga bëgg a dee doo fa dem li nga bëgg a dee doo ko bëril koo ne woon boo demee màkk yàlla nga fa dee boo laalee kaaba gi mu ne amin waay waaye yooyu yàlla booy bus booy dee yàlla fekk ngay jàng alquran amin waay waaye bis booy dee yàlla na la fekk ci jàkka ji ñu ne amin waay wala ki nga xam ne dafa jàpp jour vendredi ñëw lal si yàlla di julli ñaari ràkk di préparer dem jumaa bi mu sujootee ci ñaari ràkk yooyu dernier sujoot bi ndeke dee na foofu mu sujoot foofu rek dee ba waa jumaa ji moom moo war a jiite jumaa mais ndeke dee na jumaa jaa ngi koy xaar moom mi ngi këram sujoot fi mu doon naafila ñaari ràkk bi mu jàppee ba pare dee na doomam ñëw di ko ne waaw yow yaa ngi tardé laal ko rek mu daanu dañoo waa jumaa ji ne leen imam bi faatu na kooku lu ngeen xalaat ci moom loolu baax na wala baaxul loolu loolu melokaan bu rafet la wala ñu mel noonu nag soo ko soo ko bëriwul di def boo ci dëkkul doo ko mun a am am na benn waaye boo xam daawul nelaw guddi doom ji ne ko papa loo doo nelaw guddi mu ne damay bañ malakal mawti ñoo fekk ma ci kaw lal bi may dee fekk maa ngi nelaw damaa bëgg bu ñëwee rek na ma fekk maa ngi pare maa ngi kàbbar wala maa ngi rukkoo wala maa ngi sujjóot il faut préparer la du question rek nga toog nii yaafu si accaaral mais da ngay nekk ci lu baax ba malakal mawti ñëw fekk la ci nga dee ci lu baax yàlla nee na innal lazina gaa ñi nga xam ne kafaru ay yéeféer lañ weddi yàlla lan tuxniya anhum du leen jëriñ mukk amwaaluhum seen alal wala awlaaduhum ak seen doom yi min allah ci yàlla shay an dara wa ulaayika ñii ashaabu naari ñooy waa safara bi ngeen li yàllaa ko wax kon boo waxee ñu ne non yi ñii ñu soxor nañ de ñun dañ koy nettali rek amu fi amu fi sentiment yàlla bi mu koy yoon bi mu ne ulaayika ñii lan la wax ashaabu naar yàlla nee na ñii ñooy waa safara yamu ci mu ne hum ñoom fiiha xaalidun hum ñoom fiiha ci biir safara sa ñu ne ah mu ne xaalidun fi la ñu nekk éternellement du ñu génn wallahi mbokk yi bu doon benn minute la sax bu doon benn minute ëpp naa dugg waxuma nag yàlla ne xaalidiina fiiha dañ fay sax wax naa sànq kan moo nangu fi toog ci gaz kenn nangu ko xal moo gën a tuuti soo defoon erreur dëgg ci sa tànk doo ko ci tegaat ah boo ko xasee teg su la benn waay ne waa tegaatal waay des na tuuti boo ko ciipatoo rek day dee te mu xal bu ndaw la bu tuuti nga teg sa tànk rek teg allahu akbar léegi nag imagine leen jahannama yàlla mu ne ñii fa la ñuy nekk te saa yu yaram yi ñoree kullu ma nadijat juluduhum saa yu der yi ñoree ba lakk yàlla mu ne ma changé waat ko am na benn scientifique indien loolu moo ko tubloo saa yu der yi ñoree yàlla ne ma defaraat der bi moom loolu la jàng po la jàng xam na ne li yàlla wax dëgg la moom loolu moo ko tubloo mu ne alxuraan bi ki ko def kii ki ko wax kii dëgg-dëgg mooy yàlla kii moo bind nit ñi moo leen moom moom mu dem tuub jàpp njàmburam wax na dëgg saa yi der yi ñoo ne yàlla leen ma changé ko te safara amul noppalu waaw foofu la nekk di yuux di woo Malik pour Malik ñaanal leen yàlla yàlla oyofal rek benn bis la ñuy wax waxuñu yàlla baal ñu de dañu ne li yu xafifa anna yawman waxal Malick Malick waxal yàlla rek mu baal ñu benn bis rek benn bis rek ñun lañu bëgg waxuñu sax nañu baal éternellement mais benn fan allahu akbar xam ngeen ne kon metti na kon nan leen jaamu yàlla borom bi nee na mathalu misaal maa yunfiquuna la ñuy dépassé ñoom yéeféer yi fi haadihi lxayaati dunia ci bile dund àdduna yéeféer yi li ñuy dépassé seen alal ci dund àdduna ci xeex lislaam ak ci financement yu bon kamasali riixin mu ngi mel ne ngelaw kamasali riix mu ngi mel ne ngelaw ngelaw loo xam ne fiiha sirrun ngelaw loo xam ne dafa sedd guy tar am voix day rey mbay ngelaw li dafa tar dëgër sedd yàlla nee na ñii financé seen alal di xeex islam di financé yu bon yi seen dépasse yooyu ñuy def kamasali riix mu ngi mel ne ngelaw ngelaw loo xam ne sirrun dafa sedd guy athaabat harsa qawmin mu daal di dal mbayu ay nit ñun moom vraiment lii moom xam nga looy wax moom boo ko dundee day day leer naññi ci yow amaana ki ko xam ne dund ko moom day day xalaat waaw loolu fan yi dañ doon bay dañ doon bay booru géej waaye ngelaw ngelaw xam nga jamonoy fee am na fi benn ngelaw lu ñëw ngelaw lay ñëw yàq tool yëpp tout xob yëpp la yàq garab yëpp a dee loolu la yàlla di wax ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di xeex diine te li nit ñi xamul mooy yéeféer yi financement yi ñuy indil ay plan la fan yi ban financement ngeen am plan MR ay yoonu yokkute du ngeen yokku de ay plan xaw ma oméga ay microfinance ay yoonu yokkute ay plan émergent plan oméga jaar jàll na jàll na passé na lu mu jur du dem ba pare yéeféer yi joxe wu ñu seen alal rek ci nii yéeféer buy joxe alalu ndeyjoor mu ngi reye loxo càmmoñ yéeféer yi bu ñu lay jox alal nii ci loxo ndeyjoor na nga xam ne càmmoñ bi am na lu muy def bépp alal bu ñu indi ci dëkk jullit ñi bépp alal bu ñu indi Afrique am na lu nekk ci suuf Uganda xam ngeen ko dégg ngeen lu fa xew Uganda dañ ko embargo Afrique la wala lu tax ñu ñu ñu ñu embargo Uganda c'est parce que dañ ko ne dañ ko ne da ngay da ngay da ngeen di légaliser góor jigéen mu lànk nee na ñun góor jigéen dañuy rey rek ñun góor jigéen rey rek fii ku fi nekk dañ lay rey ñu ne ñu ne ko yéen da ngeen a bon yéen duñ leen jox xaalis waaw kon yéen liñ leen indil fii lan la fan lan lañ nangu ba ñu indi ko bu leen fàtte de président États-Unis ñëw na fi bi mu ñëwee ban projet lay doon il faut ngeen nekk ay góor jigéen lu ko gars yi tontu waxuñu ko déedéet de dañu ko ne amaguñu maturité bi maanaam nañ xaar tuuti quoi nañu former booy yi ñu gën a waddal tube yi sili bi di feeñ ñi këris karas ay góor jigéen lañ di góor guy këris karas tubeem lan nga lu ci des bënn say nopp këris karas sa tube booy wax di xeeloog di tàcc naan nii lu ci desati loo dese kuy waddal tube yi daal man man foofu laa la classé góor jigéen nga góor dëgg daal day takk tube yow ah ba mu dëgër këj sooy liggéey waaye boo doon maçon nga teg benn birig yëkkat tubéy fat yëkk ci waa tubéy kañ la tabax bi di yegg boo doon daw di jàpp sa tubéy kañ ngay yegg dama gis ñaari booy yor télé télé bu ngan di ko yóbbu ci réparateur bi suñ doxee tuuti teg yëkkati tubéy dox tuuti teg yëkkati tubéy ma xoolam jaag mu leen télé bi du yegg ñu ne ndax lan ma leen seen tubéy yii du ngeen ko yëkkati ci kaw takk ko ay père père ay ban père yëkkati leen seen tubéy yi ah loolu ban façon modd la loolu ban ban xal la ñuy roy ci loolu waxutuma la léegi góor ñi de mais jigéen jigéen gi Chris Kara jigéen yéen yéen est-ce que xam ngeen ci lan la nekk ñun est-ce que xam ngeen jigéen ñi dañ koy def jigéen jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun chaque jour boo doxee ci mbedd bi da ngay gis ay jigéen yoo xam ne seen li ñu jiital mu ngi ci biti di génn seen ween yaa ngi génn léegi lan ngeen gis ci jigéen lu nëbb wax leen ma ko wax leen ma rek lu ngeen gis ci jigéen ñi yu nëbb ko wax leen ma ko lépp a ngi ci biti te xoola jigéen ni ko yàlla fonkee xoola jigéen fi ko yàlla teg alxuraan doo ci gis suuratu rijaal de waaye dañ ci fekk suuratu nisa amul saaru góor ñi de mais saaru jigéen am na jigéen yàlla moo wax sax suy wax na wax wax ju leer bu mu nekk foofu di rulle ay air wa qul na qawlan maarufa jigéen yàlla mu ne buy dox na dox dox bu balaa li mu takk di yëngu jigéen yàlla mu ne na nëbb taaram jigéen yàlla mu ne bu mu won taaram lu dul borom këram maanaam jigéen ñi yàlla mooy seen tailleur moo leen xottil yére moo leen defari dàll lépp yàlla moo leen ko defal te xoolal jigéen ñi tey amatuñu benn valeur tey pour nga am jabar sax da ngay wër a wër a bu sonn koo gis doo ko wóolu ah fi mu nekk nii ñëpp ñi amagul jabar ñoom laa yërëm nga takk jabar yoo xam ne musta am far xale bu jigéen boo gis mu ngi génn ak quatre gaañ kii lundi lay ñëw kii mardi kii mercredi kii jeudi kii vendredi kii samedi ki ci gën a yaafuus nag ñàkk ci sens moo koy mujjee takk bu ci gaa yi foyee ba pare paas la ko nga mujjee ko jigéen ju mel noonu bu màggee ci loolu ba am jëkkër lu muy continuer moo tax li ngeen gis léegi jigéen ji am jëkkër am far da ngay déglu rajo bi jigéen ju am doom ñaari nit ñëw di ngénti ku ne indi xaram ñàkk jom ñoo ñoo ñàkk jom ña- benn jigéen ñaari góor di ko ngénti ku nekk naan man la yéen ñaar ñëpp du ci kenn da ngeen a alko fu ñu jëm suñ société bi fu ñu jëm te lii may wax du lu sori de yéen ñëpp teg ngeen ci bët ku nekk mun naa wax sama koñ wala mu ne diw fu ñu jëm kon duñ delluwaat defaru defar suñu bopp defar suñu njaboot lii nii moo defaroon saxaaba yi su ngeen gisee ñooñu ñu naan saxaaba ak yonent yi baax lii la alxuraan bii lañ déggoon yonent bi jàngal leen ko leeral leen ko ñu baax ñun tamit buñ buggee baax fii rek mënunoo dem fen ay yoonu yokkuteeg buñ defaroon ay hélicoptère yuy naaw sax oto yi di naaw dootu jaar ci tali yi ah ñu tabax Sénégal ay sato du tax dëkk bi baax parce que jikko yi baaxul nit ñi bu ñu baaxulee dëkk bi du baax kon nañ leen delluwaat yàlla nee na masalu misaal maa yunfiquuna la ñuy dépassé fi haadihi alxayaati dunia ci bii dund àdduna ka masali riihin mu ngi mel ne ngelaw fii haa nekk na ci sirrun sedd asaabat dal na xarsa qawmin mbayu nit seeni tool nit ñoo xam ne zalamu anfusahum ñoo tooñ seen bopp fa ahlakathu ngelaw li daal di ñëw alak tool yi yépp daal di koy alak dara baaxatu fa naam alxars maa tahrusu lahul ard lam doon bay ci suuf si wa huwa zaru mooy mbay ma zalamu anfusahum haysu dana suuha bi shirki ndax ñoom ñoo yàq tool ba moo tax ngelaw li yàq ko tool bi nan lañ ko yàqee nan lañ yàqee seen dund mooy ñoo ko tilimal ci bokkaale yàlla misaal lay joxe de waxu la tool de daf laa bëgg a wax ne booy jaamu yàlla di def di def di def di def boo bokkaalee la nga defoon yàqu na mi ngi mel ne ku bay rek di roose di defar ba affaire yi rafet ba muy espérer ngelaw li ñëw yàqu noonu la mel loolu la yàlla bëgg a wax rek yow mi di julli di woor di def lii di bis boo bokkaalee loolu nga defoon yëpp yàqu na bis boo reppee ba waat ci sëriñ ah wala nga jël nit yéegal ko palaasu yàlla dem da naan diw yàlla la da ngay dégg fi Sénégal ku taxaw naan diw yàlla la diway yàlla dina dee te kooku nga naan yàlla la dee na nga xam ne du yàlla da ngaa réew rek da ngaa xamul rek da ngaa réer rek waaye yàlla mii ku xam du ko dendale kenn waaw waaye ku réer nag moom lu ko neex mën naa def waaw ku réer mu ne ni boo doon dem Dakar nga réer nga jaar nii da ngay dox rek doo taxaw de fu ñu la ne foo jëm nga ni Dakar laay wër ñu ne la jaara ni nga ni déedéet man nii lañ ma ko waxe woon kañ nga nar a gindeeku yawmal qiyaam da ngay dox ba dee ku réer noonu la mel ku réer koo xam ne nanguwoo ñu gindi la da ngaa gëmb tëx lu su ñuy wax ak yow nga naan non man li ma doon gëm gëm naa ko ba pare ku nekk na gëm li mu gëm ku nekk mënta gëm li mu gëm yàlla rek la ñuy gëm waaw kon nan delloo si xel yi ñu xam ne ñun ay jullit la te sunu yëngatu yëpp lan la war a nekk ñu am kontaan te yàlla bu ndee dugg aljanna loolu rek wala fi nee na ku leen a sangul fi mu nekk ni kenn ci ñun bu gisoon kenn ku sol yére yu weex ci kaw ba ci suuf waa ji bëgg a toog ci huile te gisu ko yow nga gis ko noo koy def da koy xëcc su la waaji ne lan la nga ne ko së mu ne la waay waay jërëjëf waay së të të të mais yow yow baax nga de léegi lu tax yow ku bëgg a dem safara nit jàpp la nga ne ko bàyyi ma dem safara bàyyi ma yére yi yàqu ak dem safara yére yu yàqu ak yaram bu yàqu ban la ñu war a sauver bu fekkee yére waaji la ñuy bañ mu tilim ñuul yaram waaji nar a dem safara ban njëriñ la am kon bala ñuy sewee yére bi nañ sewee yaram bi yaram bi nag li koy sewee mooy ñu bañ a bokkaale yàlla ñu bañ a yàq suñu liggéey yàlla li muy misaal fii mooy kuy liggéey koo xam ne day jaamu yàlla waaye day bokkaale day yàqu mooy tool bu ñu defar ba mu baax waaye tool bi bu ngelaw li ñuy yàqu borom bi nee na wa ma zalamahumullah yàlla tooñu leen de ci dugal bu mu leen dugal safara walakin waaye anfusahum seen bopp yazlimuna lañ tooñ parce que yàlla du tooñ ñoom seen bopp lañ tooñ wa ma zalamahumullah yàlla tooñu leen lañ doon liggéey ci àdduna lu bon di bokkaale di ja boole yàlla ak keneen loolu la leen yàlla fay yàlla da leen a bàyyeeg ñooñu ñu ko doon booleel ba mu ne ba mu seet ndax ñooñu mën nañ dara yowmal xiyaama xam ngeen yàlla lu muy def day woo ñi doon bokkaale mu ne leen dem leen ci ñi ngeen ma doon boole ngeen xool ndax ñooñu tey mën nañu dara waaw akbar ñooñu mënuñu dara bu ñu xoolee ñooñu ñu ngi leen yeewi buum ñu ngi tal seen bopp moo tax day ngeen yowmal xiyaam bi nit ñi dawee dem ci Ibrahim lu mu wax sama bopp laa dal ñoo nit ñi def mu ne dem leen xool Moussa Moussa ne leen man damaa reyoon nit dem leen ci Isa ñu dem ci Isa lu mu wax man dañ doon wax yàlla laa sama yaay yàlla la sama bopp laa tal su fekkee ñooñu lañ dem yowmal xiyaam ñu tal seen bopp ñeneen nag te Sénégal gàtt nañu xel gàtt xel goo xam ne jàpp nañ am na fi ñoo xam ne ñoom ñoo raw Ibrahima ñooñu dañuy ñëw rek ne yàlla ana nga mu ne maa ngi ñu ne ubbi bunt bi ana ana sama waa kër ñu ne ñu ne raa leen ak a yomb ak a yomb noonu lañ ko gëmee ah ak a ñu gëmee non ko ñoo naïf xool yu yomb yooyu ana yàlla mu ne maa ngi leen ñu ne ubbi bunt bi ubbi leen buntu àjjana yi acca bismillah gars yi dugg leen bu kenn des yéen ñëpp da ngeen dugg xool ak rek ak terme yi ñu koy waxee diw moo ñëw waaw jàpp ci buntu safara ubbi ko ne ñeen ñëpp ngeen leen nga gis nit ñi ne est-ce que est-ce que non sa yaram day daw fii da ngay reeba dee yooyu yomb na de waaw am na loo xam ne nag neex na trop nga nekk ci sa wetu sa wetu taalibe ñu tegal la ataaya tegal la gerte caaf ak biscuit gaa yi di yuuxu ngeen di fettasu di lekk di naan ataaya neex ngeen di wax lu leen neex neex na trop courant coupé wul yéen a ngi ci leer gi leen neex mën ngeen a wax waaye bis bu ñu la dugalee ci lëndëm gi bu ñu ubbee bàmmeel bi ba dugal la ci ba nit ñi ñibbi nga bëgg a jóg suuf si ne la attention ici c'est moi fii sama kër la man suuf dalal di am problème bu rëy nga bëgg a dem day joor suuf téye la nga dem càmmoñ suuf téye la nga bëgg a jóg suuf tey la nga jékki dégg ci suuf si riir ñaari ponkal di ñëw ñu tudd mun kar ak mu nekk nekkiir loolu jar naa bàyyi xel loolu jar naa sóoraale bu ñëwee fekk la nga toog ñu ne la xum jógal nga jóg ñu ne la yaa abdallah ijlis toogal loolu jar na bàyyi xel de boo bàyyi xel loolu nag caaxaan yi du la nax caaxaan yi du la ndax yi gars yi def waaw benn taalibe dafa ànd ak papaam dañoo bay ba nawet bi jeex ñu dem joxe seen sëriñ àddiya dugub bu bëri mboq bu bëri dafal ko cere ay saako ñoo jox ko di ñibbi ñu ko joxee sëriñ bi ñaanal la ñuy ñibbi ñu dox ay kilomètres amuñu oto yëkki-yëkki rek sëriñ bi romb leen ak benn pajero dem ne leen nii ñu ne ko nii doom ji ne papa ji waaw papa mu ne mu ne ko kii du sunu sëriñ bi ñuy demoon siyaare ji mu ne ko ah kay moom la kay ne ko ah papa kii comme yóbbaale wu ñu ci oto bi ndax àllaaxira mën na noo yóbbaale alaxira comme kii yóbbaale wuñu fii ci naaj bu tàng bi moom kenn nekk ci oto bi te ñun xëj nañ ci yóbbaale wuñu ndax alaxira kon kii noonu papa ne ko ah jar naa xalaat de mu ne ko papa nan jaamu ji yàlla li ma metti mooy lanu yóbbu te duñ ko jotaan yooyu ay jaaxal nan jaamu yàlla penku bi bu la fi kenn ëppale waa ji ba mu ne yonent bi ba ko yonent bi ne waxal loo bëgg ma defal la mu ne yonent maa bëgg ànd ak yow aljanna yeneen bi ne ko ah inni ala nafsika bi kasarati sujud kon nag jullit lu bari gis nga boo buggee dugg àjjana jàkk ji bu la fi kenn jiitu alxuraan téere yàlla bi bu la ci kenn ëppale lum jàng tudd yàlla astaghfirullah subhanallah alhamdulilah la ilaha illa allah akbar bu la kenn ëpp lu mu koy wax loo mën def ci lu baax defal loo mën daw lu bon dawal wallahi ajjana kenn du la fa jëkk su nit ñi duggee nga dugg su nit ñi duggul nga dugg waaye nekk bi di làqatu ci ginnaaw nit ñi naan diw mooma yóbbaale wala maa ngi ci ginnaaw diw boo dekkee gisoo diw nag wala boo ko gisee mu ne la sama bopp laa taal maa la ëpp problème fopp te yàlla loolu la ñu wax yàlla nee na li kulli mri'in minhum yawma izin sha'nun jàngeen ay yàlla nee na yowmal xiyaam ku nekk sa bopp nga taal kon nee na delloo suñu xel kon mbokk jullit yi lii moo doon darsu tey li ci njuum te ñu ngi koy jégglu suñu boroom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu